émission bi ñuy am mardi bi jot ci waxtu wii tuddee ko li ci réew mi ndax fa tabaarakallaahu réew mi daf ñoo yitteel amal ñu njariñ ba lépp loo xam ne jàpp na leen njariñ la rek ñun ak yéen ñoo koy bokk di waxtaanee suñu waxtaan wii ñu weesu ñoo ngi waxtaan ak yéen li nga xam ne moom moo jëm ci vacances yi fa tabaarakallaahu eh, liñ ci jublu rek moom mooy ñun ñëpp ñi defaru ci kon yàlla miy defaree tey jubal ay jaamam yàlla noonu yàlla jubal yàlla noonu yàlla jubal te jéggal ñu suñuy bàkkaar suñu jumteeg suñu rëcc rëcc ak suñu ñaawtee fi jëf mbokk yi nag macha allah te moom tey moom dañuy ñëw ci waxtaan wi nga xamante ni ne ñi ma koy jàmbat nag bari na donte mos naa ko waxtaanee bu nduróog bii waaye nag du ñàkk nag ñu waxtaan ko ah dañuy wax ne ku bàyyi ñëpp topp la foo jëm yóbbaale ko tey nag ñoo ngi waxtaan yi nga xam moom mooy sëy waaye côté biñ ciy waxtaanee rek mooy góor ñi sama mbokk góor ñi ngeen baal ma fa tabaarakallaahu chaque jour ñuy ragal yàlla ci ñi leen yàlla booleel chaque jour nañuy ragal yàlla ci ñi leen yàlla booleel ndax it imaginel koo xamante ni nii avant nga koo takk lu ne jaral na la ko jaral na li ñu trois cent li ñu cinq cent li ñu une semaine jaral na lu nekk léeg-léeg sax nga joxe buñ la jox boo buñ la joxee weccal nga ne gàddu laa mu ne di jaay nganda ngandul di ko wan ni man yitteel nga ma waaye dem nag fa tabaarakallaahu di naxante kooku di naxante kooku bañ na ko xal waxuñu la dañ la koo jaay de waxuñu la doon koo jënd de bañ na ko dañ ne amoo njëgam boo doon def ci moom ay milliards wallahi taxul nga jënd ko ndax jigéen moo seer yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku tedd rek mooy teral jigéen waaye ku torox rek mooy toroxal jigéen waaye gis nga waxuñu la bañ baatu may may may la jox dañ na koo may ñu yëkkati kooku may la ko mbokk yi nag kuñ yëkkati may la ko nga war a ragal yàlla ci moom nga war koo tiitee bu rafet war koo jàpp jàpp bu rafet waaye wax dëgg yàlla sama mbokk góor ñi ci ñenn ñi ma ko sañ wax na ndax nag fa tabaarakallaahu am na ci ñoo xam ne baax nañ lool ba nangoo doon ay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw bari nañ duma am na jox ne bari na lu ñuy dóor néew nañ dépense te loolu wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne lu lu lu lu lu ruslu la ci ci ci ci jamono gi ñuy dund ndax ki nga xam ne yaa ko takk indi ko sa kër léppam yow la war yaa koy dëkkal dëkkoo ko yaa koy dëkkal dëkkoo ko dundam lépp la war ndax yeneen bi yàlla wax na ci alxuraan ne arijaalu xawaamuuna ala nisaa yéen góor ñi yéenay taxaw jigéen ñi waaw jigéen ñi yéen góor ñi ñooy seen kilifa ndax fa tabaarakallaahu damay yàq nit ki bu ñu la yëkkatee ba maye la kañ la may yow alalam nga waaye ndax nag yow ki yow yow mi ñu may alal day tax alal bi ñu la may nga di ko sàgg nii déedéet bari na te tey jigéen ñi nga xamante ni balaa ñëw sëy avant ñoo am jëkkër ba nga leen xamee woon xam leen macha allah melokaan melokaanu gu rafet waaw toppat ñu seen jur toppatoo leen dara manqué leen seen kër ba ku leen gis bëgg leen waaye tey misère wala naqaru góor tey jàpp na leen ba bu ñu yëkkatoon ndox sax di ko may nga suur ndax melokaan bi nga leen ngi bu demee ba jigéen góor teg ko stress bu doon jéego sa rek ti tànk ya xar na Euh, tànk yi yi yi ruusali pentiir di ñoqati di ñoqati darab di xotti matelas ah yàlla noonu yàlla yërëm waay te yi ci bëri jigéen ñi góor ñi rek ñoo leen koy teg kon nag bu la yàlla teralee fa tabaarakallaahu dangay ngay teral jigéen ndax ñu dañuy yëngu ci lu bari ci wàllu waxtaan mais dafa bari jigéen yi nga xam ne dañu ñëw di la kalaame naan la wallaahi sama jëkkër damay def lu nekk pour neexal ko waaye du gis loolu am na joo dem na ba naa man sama chaque jour dama koy laaj ne ko lan laa la def bu dee sax dama laa tooñ nga wax ma sukkal la jéggul la baal rek te yàlla tax waaye gis nga maaxal asaf defoo ma dara rek loo koy wax xanaa xamoo wallaahi mën ngaa néewi dépense sa kër neex lool waaw mën ngaa néewi dépense sa kër neex lool waaye nag fa tabaarakallaahu mën ngaa bari dépense lool sa kër naqari boroom kër waroo yor jikkoy gaynde boroom kër dëgg boo jógee xëy huit heures ngay xëy soxna si wala dix heures naan la allo papa namm naa la de billaay ci fajar laa la gëj gis te wallaahi matul sax deux heures de temps loolu nag yow guur yaa koy liggéey ba ñu namm la man day man ndeysaan mën naa jël sama bopp exemple waaw saa yu ma nekkee ci liggéey bi rek fa tabaarakallaahu di liggéey rek naaj bi tàng jër ndeysaan sama ñàkk sikk bi nga xam ne mooy sama lépp fépp lu ne fu ne wëriñu may sama ngooŋ day jékki-jékki rek yëkkati téléphone bu ma woowee ne ma naaj bee tàng sama xel bi dem ci yow ma ne xaaral ma woo la damay jékki-jékki xam nga njaay laa sax damay jékki-jékki rek mel ni gaynde boobu waaw mu gën maa yokk li nga xam ne moom mooy xadar kon nag ku ci nekk ci ñun war na koo bàyyi xel lépp lu ci jub rek ci yàlla la te loolu rek mooy li ñu tax a jóg waaye lépp loo xam ne ni ci kàddu bu ëpp la wala bu safaanu ci dënkate ñoo ngi leen di jéggulu di jéggulu yàlla wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu